cosaan teral gan cosaan itam yaru ci loolu gannaaw yàlla dafa noo sedd ñu nekk doon ay kilifa jar na ba président de la république di ñëw fii ki ki Casamance naturel surtout fii ki Sédhiou ñu sànn appel woo mbokki xarit andi jàmm yi ñu teeru ko teeru boo xam ne fu mu jaar fu nekk yaakaar naa loolu dana am sa ndax gis naa waa Sédhiou ni ñuy préparé te di ko félicité yoon bi nga xam ne moom lay commencé di ko defar muy loo xam ne dañ ci jiitu xëcc na ci ab Abdou Diouf ba mu koy inauguré 98 remerciement la doon jox ndax ñun ñoo ko commencé di ko liggéey. boole ñaar réew yi ñett réew yi muy Guinée Bissau Gambie Sénégal ndax yoon bi dafa am solo loolu surtout barrage bi kon bu ñëwee tey teg xeer bu njëkk fii ñu ngi koy remercier di ko remercier ki lu paase ndax fii Sédhiou ku fi ñëw tey xam nga ne Sédhiou sensé na mais xam nga ne itam. Casamance naturel changé na fu mbedd am fu mbedd war a am ñu ngi tracé ñun def nañ ci alal bu bare ki pont bi ay centaine de million loolu yëpp pour ab dëkk du développé mukk tànko yoon yi amul ñenn ñi xëy na dinañ ko gis parce que kenn ku nekk ni nga gis le mais borom xam-xam yi dañoo d'accord ne réew du développé donc transport yombul kon ñu ngi koy féliciter ki loolu xam ne nit développement la yoru la nañ ko teru teer boo xam ne fa tabarakallah loolu lañ ñaan jullit yépp suñu xarit yépp kuy xarit rek invité nañ la ñu ñëw teeru suñu président suñu président tey suñu président itam ke ëllëg ñu ngi ñaan bu baax nag te yàlla dina nangu suñu ñaan mi ndax xol lañ koy def ak te itam moom jëfam may na ko loolu jëf mooy may nit la du wax du leneen jëf mooy may nit jëf boobu yaakaar nañu ni danañ ko fay bu soobee la dina fekk fii mbooloo boo xam ne du ko fekk fenn ñu ngi woo ñëpp nag waaw loolu bokk na ki yi ma wax rek dama ko tënk eh, ñëpp xam nañu ni pakaaw Casamance fépp am na courant boo ko wane fépp courant ku gëm du gis xam nga lu am rek do bo fekke da nga gëm ni rek mën na la baña gis waye ñepp xam na ni leer na fep leer na fi tollu té lool kiliyam la def na lool pakaw def na mbedd mu ngi def ndox lu am luy développement rek mu ngi koy def fi kon nak ñun dañu wara del dañ ko wara delo ñukkel ñu ngi koy ñaan mom dañ ko wax bofu bu ñu toogee muy temanto parce que xam naa ne mu ngi xelam sabab am na yoo xam ne moom da koy wax nii rek ndax kilifa nga war nga ko ñaan waaye li nit xalaat rek lu baax teemanto pont teemanto itam bëgg nañ ko parce que bu ñu loolu amee rek jeex na fii fii Casamance amatul problème euh, sa pont yi am ni fa tabarakallah ñu ngi koy ñaan teemanto itam mu boole ko ki programme